بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sunu boroom moom mi am jàmm mu defal nu jàmm moom mi am sutura mu defal ñu sutura àddina ak alaaxira rabbana taqabal minna innaka anta samiu alalim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim jataay bi ñoo ngi koy def ngir tontu ci ñaari laaj yoo xam ni yàggees na moos ñu koy laaj bëgg ñu def ci lu mel nii waaye ñu gàntaloon ko bañ koy gàntale dañoo jàppoon ne daanaka njariñ la bariwut yaakaar naa ni ñi ko sàkku ci jun mi ngi bëgg a bari ñu dem ba ca biir sax ñu gis ni ndakate sax am na njariñ lu ca nekk ñaari laaj yooyu bi ci jëkk mooy wane lenn ci taarixu daara ji nga xam ne yore nañ ko Bambilor ba yegsi ci daara ji mu jur ñaareelu laaj bi jëm ci yëngatu bi nga xamante ni ñoo ngi koy yëngatu ci yaxantu ci wàllu commerce ak njariñ yi mu war a jur bi ci njëkk bokk na ci njariñ yi mën a indi mooy dana leeral bopp képp ko xamut mu mën a xam ndax comme daara ji sunu yéene mooy faatu ba ko fi muy continuer xam taarixam wala xam ca leen am na solo ñaareel bi yëngatu it ñu gis ni ah comme ay ndaw lañ ñàkkul buñ ko defee ñi nga xam ne ñooy ay ndaw danañ gëm ni kat yëngatu ba léegi ma nga fam nekkoon barke it ma nga fam nekkoon ba léegi jàppandal ak suñ borom it ma nga fam nekkoon ba léegi. bu fekkee ci laaj bu njëkk bi la mu jëm ci daara ji daara ji nga xamante ni moom la ñu nekkoon Bambilor moo jur daara ji tey di te ñaari laaj yooyu sax balaa ma ciy tontu bay wax ne ñoom ñaar dañoo duggalante dañoo duggalante maanaam mënee solo wax ci benn bi te doo laal ca ba ca des. daara ji ñi ngi ko tàmbali ci atum 2002 ci suma fàttalikoo ci août 2002 ginnaaw boo xam ne dem nañ ba gis ni kat jubluwaay bi ñu am ci jàngale mooy yar ak jàngale wasaare alquran ñu tàmbali booba mi ngi nekkoon barab bu ñuy wax géejawaay fa lañ nekk defe naa 2002 ba 2003 4 5 ba 6 foofa la nekk ci 2006 nag ci la doog a tuxu ñëw fii ñuy wax Bambilor ba war booba daara ja da doon luye comme ni daara yu bari di mel waaye sunu borom mi nga xam ne mooy ku baax ki te it comme ni ma ko waxee ñaari laaj yi dañuy duggalante ci jàppandal ci yëngatu yi ñuy yëngatu dem na ba sabab ñu am barab bu bopp bu ñu moomal sunu bopp ci la daara ji tuxu ñëw Bambilor ba muy nekk géej waaye jën daara la woon bi mu yegsee Bambilor nekk ñaari daara ju góor ak ju jigéen li fa mokkalee ci ay ndongo moom fi ne xam naa teewlu ma ko waaye alhamdulilah bari na lool ci ay góor ki jigéen li ma góor ñi nag moo ëpp ndax jigéen ñi ma matuñ fukk waaye li ma góor yi moom bari nañ lool ba fi mu toll nii am na ñeneen ñoo xam ñu ngi ci leen waajal pour ñu war a mën a tari ah alhamdulilah daara je bu dee góor ña ay góor rek ñoo fa nekk bu dee jigéen ñi ay jigéen rek ñoo fa nekk jéem na nit luñ mën nag ci dañuy jéem lu ñu mën ci yar donte nag nit moom faaw lu muy def rek ak niteem feeñ ca kon bépp njuumte bu ca feeñ suñu borom lañ koy jëkk a jéggalu waaye ku ca gisee njuumte da ngay xam ni kii loolu tax koo na jóg ndax jàppalante ngànt googu nañ koy bàyyi xel doomu aadama mën naa jug di góorgóorlu ci dara defe naa benn njuumte bi mu def warta tax nga fàtte téeméer yam baax le kon dañuy nangu ni taqsir am na ci muy gàttañ waaye gum ca man ci doon it nag matatik doomu aadama loola càgganteem waaye nekkul suñu jubluwaay ci noonu ci la yàlla dogal ñu amoon yéene am daara joo xamante ni it nag dañ koy beral ay jirim lan moo sabab loolu am na sunu mbokkum jullit mu yoroon daara ñu ngi ñaan sunu borom mu wàcce ci kawam waamam yërmande fa mu nekk dafa faatu rahimahullah mu Muhammadul Amin Jaañ suñu wóllare la woon di suñu xarit bi mu faatoo sama xel xalaat ni man day njabootam ku ko bàyyi nii mu tasaaroo dana xaw a doy waar ci laa jóg ni xaaral ma jéem ci dara loolu mu ngi tombeek 2006 ci bi mu faatoo ci la mbokkum jullit mu ànd ak ñun yore otoom ñu dem ba ngaay fa mu dëkk waxtaan ak ndijaayam ak yaayam ba suñ borom dogal ñu déggoo ñu jël kenn ci ay doomam ndax kooku moo ca tane woon ñu indi ko xëy na léegi nekkatul ci daara ji ngir ay sabab waaye bu ñu ñëwee daal ci lañ tàmbalee gis ni daal xalaat bi tàmbali di togg war nañ mën a am daara joo xam ne daal ay jirim kese kese ñoo fay jàngee te duñ fay jàpp nañ loolu ku ko dégg nag da nga yaakaar ni kii moom daa yor lu dul jeex fekk déedéet daa ànd ak ki yor lu dul jeex muy suñ borom ci noonu ci lañ di def ay jéego di sabablu ba yàlla dogal yeneen i jirim am ca daara ja di jël par benn benn ba fi mu toll nii mën naa ni xam naa ñaari jirim ba ñett yoo xam jot nañ faa mokkalee sax nag ba génn suñu borom dogal ñu jël ay benn benn jirim dugal leen ci daara ji di jaamu yàlla ca ñoom bokk na ca la ñuy jéem ci ñoom ba tey sax ñu ngi koy saxal altine ju jot loolu li may wax ni mat na ay at atin altine ju jot ñu taamu seet li ñu yàlla wërsëgal moo xam meew la moo xam soow la moo xam tàndarama la lu mën a doon ñu baaxee leen ko maa ngi fàttaliku sax am na xissa bu xaw a reelu bu ci masa am ndax toog naa ci néeg ba mu yàgg rek benn xale dikk ni ma ah ya oustaz dégg nga li diw wax ma ne ko lu mu wax mu ne nee daa bëgg bàyyam dee ndax mu ñëw bokk ci xale yi kon loolu la muy wane mooy xëy na la mu gis jàpp na ni ñu ngi leen di toppatoo loolu nag wax dëgg yàlla su yokkoon sax ñu jël ngir gone gi dem ba dootul yëgati ni bàyyam faatu na ci noonu ñu bëgg sabablu ni am daara joo xamante ni ay jirim ñoo koy nekk ca Bambilor ba yàlla dogal ñu amoon benn barab boo xam ni ñoo ko jënd alhamdulilah yéene ko faa def waaye ci diggante bi yàlla sottal barab bii ñu nekk nga xam ni ab tool la daara ji nekk ci biir tool bi nag ñoo ko jënd loolu tamit lu mat a leeral la bokkut ak centre bi ndax li gën a tax ñu sawar ci wax yu mel nii sax ay leeral ay lënt bokk na ci ndax ñàkkul ñaar ñett ñoo xam jege nañ ma lool sax nag nga xam ne ñoom moom xam nañ ma ñu ne dañ koo dégg di wane ni maanaam tool bi daa bokk ci financement ab centre bi déedéet tool bi bokkuñu sax ay centre bi daanaka 2015 bii la sotti 2016 bii ñu nekk bopp tool bi yaakaar naa ne ñi ma xam te xam nañ ci jotee xam nañu jiitu na ñaari at te it nag alhamdulilah dërëb ma sàmba mbaaba dema demu ci ñoo ko jënd ci li ñu yàlla war sëgal ci yëngatu yi ñuy yëngatu jël centre bi dugal ko ci ndax lii mat naa leeral ndax bakkan bi mën naa xëy rek suba faatu bàyyi am lënt mu mu bari barab bii moom bu soobee yàlla fi mu nekk ci biir tool bi ñoo ko dagg joxe doonatul barab bu kenn moom waaye lislaama ko moom waaye nag jëmmi tool bi mu nekk nag kooku nag sunu moomeel la bu ñu dundee xam nañ lañ ca war a def bu ñu faatoo it incha allah wax nañ lañ ca war a def loola moom ma nga ca loxal suñu borom kon leeral googu it lu mat a am solo la ndax léeg-léeg nit ñi dañuy faral di jaxase yu bokkut maanaam barab bi bërki déem boo jaay la sotti tool bi mi ngi fi bëgg am ñaari at kon loolu sunu moomeelu bopp la wala su ndénkaay sunu borom moo ñu ko dénk ba ndax doomu aadama moomu dara lépp sunu borom a ko moom. kon ci gàttal ci lañ di def ay jéego ba def ay déposement ba sunu borom dogal ñu jox ko ku mel docteur Ahmad Lo gaaral ko xalaat bi mu kontaan ci lool ndax ay ndaw yoo xam dañoo jékki-jékki xalaat xalaat yu mel nii yaakaar naa ne loolu lu rëy la ndax day mel ni ku yore lu dul jeex fekk li mu yore sax bariwul yàlla la àndal subhanahu wa taala ci noonu ci la am ay gan yu jóge Kowet. gan yooyu biñ leen ko gaaralee ñoom it ñu kontaan ca lool ne dañoo bëgg a gis barab bi ñoom ñëw nañ ba fi ci barab bi alhamdulilah laaj na ma wax leen ci la ma cheikh bi àndal ni ah bii dem incha allah dinañ ci def luñ man ba ñu bee yàggut ñett ñetti weer matu ko ci lañ financé daara ji ngeen gis. jubluwaay bi nag incha allah moo yar fi ay jirim yoo xamante ni tàmbali bi fanweeri jirim la ñuy jël fanweeri yoo xamante ni ñoom kenn du fay maanaam dañ leen di jàngal ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala. foofu nag mënuma tëj buntu boobu lu dul damaa leeral tom bu am solo mooy nekk naa ci ab diir waaye ay mbokki jullit yu jàmbaare fekk ñu ci ñu leen tuddee mbokki sàkku yiw yaakaar naa ñu bari xam nañ leen ci internet bi ak Facebook wax dëgg yàlla ñu def ñu liggéey bu rëy rëy ndax am na xale yëpp ñun ñoo leen yoroon di leen yore ci suñu wërsëg boobu bopp waaye fiñ toll nii lu mat fukki xale ca ña fa jot a nekk ndax fi ne fukki xale juróom-ñeent ña nga fa waaye lu mat fukki xale daanaka ñoom pare nañ leen maanaam jël nañ leen di leen dimbalee dara par weer loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne jaagu nañu tudd ko ngir mbokk jullit yi yëpp ko santee ko suñu borom ñaanalee leen ko wañe ne lii kat dana tax liggéey bi gën a jëm kanam am na yeneen mbokk jullit yoo xamante ni bëgguñ ko xam seen tur waaye ay sénégalais lañ nekk fii yoo xam ne ñoom it ku nekk am na genn gone goo jël di ko pare ne démb démb démb rek am na kenn ku ma woo nee na ma dafa bëgg a jël benn xale at mi yëpp moom da koy fayal kon loolu daara ji sax daara juy fay waaye loolu da ko tudd ngir pare ne xale bi wane ne ak dundam moom la war kon loolu moom mooy taarixu daara ji détails ya nga xamante ni moo ca aju nu daara ji doxee ak yooyu xëy na dinañ defaat beneen vidéo boo xam ne loolu lañ cay leeral waaye daal ci gàttal daara ji nii la jàkka jeeg jumaa ji tàmbali na incha allah fii ak ab diir daara ji dana tàmbali ñaar fukki góor ak juróom fukki jigéen ak juróom muy fanweeri place moom la ñu am incha allahu yooyu lañ bëgg a liggéey dina leer ca kanam. waaw loolu li ñu ciy leeral rek mooy daara ji ci jëmmi boppam daara jirim la joo xam ni liñ ci yéene mooy ay góor ak ay jigéen nekk fi fanweer fukki góor ak jigéen fukki jigéen ak juróom fukki jigéen ak juróom muy fanweer jubluwaay bi mooy ñu fiy jàng te kenn du leen fayal maanaam dañuy jàng ngir yàlla ñun ak mbokk yi nga xam ne ñooy mbokk yi ñu tudd léegi mbokki sàkku yiw nga xam ne liggéey nañ ci liggéey bu rëy rëy rëy ndax lu mat fukki xale pare nañ leen nekkul fay la sax waaye ñoom ñoo joxe seen dund ndax yonte yàlla li mu santaane ci yar ay jirim ni mu amee solo kon ci bunt boobu daara ji insha allah ak détails yi mu war a àndal bu soobee yàlla fii ak ab diir danañ ko leeral bu dee beneen bi ci gàttal jumlaay gën bi ñu gën a leeral sax mooy ñu xam ni yaxantu ma nga fam nekkoon ba léegi barke fa nga ma nekkoon ndimbalam suñu borom ma nga fam nekkoon ba léegi liñ ci jublu mooy ñu ngi jariñu ci waaye ñu ñaaxaale ci sama moroom yi ndaw yi damaa toog benn bis ci daara ji loolu yàgg na 2004 am sunu mel ne mbokkum jullit ba léegi dama koy ñaanal yàlla dama koy wax yaay sama sëriñ ci liggéey bi muy liggéey muy jaay tàndarma ñu koy wax bàmba seen moom loolu la doon yëngatu mu fekk ma fa ni ma tee ngaa ñëw ma dugal la ci jaayi tàndar ma ne ko ii loolu moom mënuma caa dugg loolu moom man ay commerce ak yooyu moom wax dëgg yàlla nag mu topp ci sonn ci mel ni moom mbir mi da koo amal njariñ ba benn bis rek suñu borom dugal ci sama xol ma ne ko bismillah nañ dem wax dëgg yàlla mu ànd ak man dugg ci dëkk bi wan ma fi muy jëndee tàndar ma fi ñuy jëndee mbuus yi ñu koy lëggee yooyu yëpp alhamdulilah maa ngi fàttaliku jamono jooja weeru koor la tombeel buñ mësaana julli timis ba noppi man ak ndongo yi gën a mag ci daara ñoo daan ànd yenu ay paan gone dañuy yenu ma yenu comme ñoom ñu topp boutique yi ndax jamono jooju xëy na njëg gañ ko doon yëngee yomb na dinañ ko mën a jaayaat borom boutique yi noonu alhamdulilah li may wax ni mi ngi tekk 2004 2005 ba 2006 ci 2006 bi nag ci lañu suñ borom wërsëgal ca yaxantu booba yàlla barkeel ko ba ci lañ amee liñ jëndee daara ji nekk Bambilor ci noonu yàlla subhanahu wa taala ku bari tawfiq la ki ndimbal ndax liggéey ma nga fam nekkoon ba tey benn bis dafa am kenn ci suñu masaayix yu mag yi su ma tuddoon turam ñu bari danañ ko xam dama xëy suba teel rek mu woo ma ni ma man de dafa mel ni gis naa xiiwal goo xamante nii daal mën nga caa jariñu ma ne ko lu mu mu ne dafa am benn waay bu wàcce woon tàndarma ju bare bare bari ci koor gi affaire ba lamb ci ay loxo mu di ko wanteer mu tegtal ma fa ma dem bi ma demee mën naa ne ubbeeku bii ñu am tey ci liggéey macha allahu fa la jaare ndax jamono jooja defe naa mag ma ko doon jaay su ma jub ndax lii mu may wax mi ngi bëgg a yàgg kilo bu nekk cent trente cinq franc te jamono bi kilo di jar huit cent franc mu wante nag saako 3500 ay saako la woon wax dëgg yàlla loola ku ko xam da nga xam ni loola moom njëriñ dama ko doon jël ci moom 135 dem jaay ji ko 750 te ba tey maay gën a yombale marché bi ndax marché nga jaay 800 ma jaay 750. jamono jooju nag wax dëgg yàlla ci la liggéey bi nag tijjeekoo nag tijjeeku ca alhamdulilah ba ñu amee ca lu am solo loo xam ci la liggéey bi continué ba tey ñaareel bi suñu borom defal na ci ay ubbee tamit yu baree baree bari ndax liggéey bi liggéey barkeel la benn bis maa ngi ci waxtaan ak benn cheikh docteur Aline Gueye rahimahullah mu ne ma moom de ñaari yëf seetlu na ko bi ci njëkk mooy tàndarma jaay ko dafa mel dafa am barke ñaareel bi mooy dafa seetlu ca Madina mu ni fa mu doon jàggee daanaka ahlu salaax mooy ñi nga xamante ni ñoom foog nañ ci ñoom yiw rek ñoo koy jaay même daal ku bëggut lu baax bu ko nangoo jaay ma ne ko ah loolu di seetlu la boo xam maa ngi ko ciy doog a dégg man waaye ci gàttal mën naa ni barab bii ñu nekk muy tool bii ci loolu la soqeekoo su ma doon firnde damay wax ni wax dëgg yàlla ay yëf soppe soqeekoo na ci yoo xam ne bu ñu ko waxee da nga naan lii mënta nekk te lu nekk la ndax am na ay nit yu ci mën a nekk seede yàlla dogal na barab bii ñu nekk muy tool bii ci lañ ko jëndee kon loolu njariñ la bu liggéey bi am na ko ñaareel bi mooy am na barab boo xamante nii ci at yi ca gannaaw barab su ndaw la woon soo xam ne matut kër sax waaye dañ koo jënd def ci ay pièces pour wala nit ki na yéene lu baax rek même bu fenti faatuut fekkee yéene ba yàlla xam ne ne moo nekkoon bis dina mës a ñëw ñu am daaray jirim kër googu ñu koy luyee la fay génnee donte tuuti na muy dimbale daara ji far sunu borom dëggal na mbir mi maa ngi fàttaliku étiquette yi may taf ci kii bi dama ciy bindoon bustaanu abi dax daax benn bis oustaz Omar Sall mi ngi may tooñ sax bu docteur naan ma fan la tool bi nekk ma ne ko damay tafaawul boo fekk tool bi amagul ma ne ko damay tafaawul mooy gàtt ga ma ne ko bis dina ñëw tool bi day am moo tax bi ñu amee lii ci laa xam ne ki na yéene lu yiw rek te ñaan yàlla subhanahu wa taala maanaam bustaanu abi dax daax tool la woon bu nekkoon ci ginnaaw madina abu dax daax moom ko juróom benn téeméeri taat tàndar moo ca nekkoon histoire bu gudd la ala kulli xaal ci gàttal daal ba liggéey bi wax dëgg yàlla ba léegi ñu ngi ciy yëngatu mën naa ni weeru koor bi rek shahru shaaban ak ramadan rek daanaka dama ciy jaay lu mat ay 6 tonnes 7 tonnes te loolu boo ko waxee ni da yéemu ci koo xam ne commerce du liggéeyam benn bis am na benn jaaykat tàndar bu ma dajal mu ni ma yow de li ma wérte wóor ma mooy li ngay jaay tàndar ma commerçant yi mag yi di jaay sax mënuñu koo jaay ma ne ko nag mbir mi barke da cee nekk am na meneen mbokk rax xafidahullah benn bis dañ ciy waxtaan mu ni ma man de li ma yéem mooy mbir mi damaa yaakaar yàlla moo ci teg loxoom ndax damaa seetlu man mi nga xamante nii maa la ciy jàppale yombal bi ci yàlla def ci jàppale gi ma ci jàppale xam nañ lii dug neen ma ne ko ak gëm naan dug neen yombal suñu borom la waaye nag yéene bi gën a rëy bi ñu ci am mooy luñ ci am mu ñu mën koo dimbali ko suñu diine kon jur na ay mbir yu bare bare alhamdulilah lii nag jubluwaay wax ji ngir leeral am ñaareel mooy ngir nit ñi xam ni yëngatoog yaxantu ma nga fam nekkoon ba tey kenn ku ci nekk bu góorgóorloo yëngatu ca la muy yëngatu suñu borom mën na ko caa barkeelal jur na ay mbir yu bare bare bare bari ndax li jur daara ji tey ak li jur jirim yi ak li ñuy jàppalanteeg ñoom yépp mi ngi bàyyi ko ca yëngatu booba incha allah lii daal ci gàttal lañ ci mën a leeral ñàkkul yeneen jotaay incha allah détails yi nga xam mënees na ko caa def ngir nit ñi mën koo jariñoo xam ne liggéey bu am barke la yeneen liggéey yëpp incha allah ku góorgóorlu yàlla subhanahu wa ta'ala defal ko barke kon daal lii ci gàttal lañ amoon yéene tontoo ko ci ñaari laaj yooyu di ñaan suñu borom mu nangul ñu innahu samiul alim mu jéggal ñu innahu wa tawaabu rahim wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain